tous et à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité de nous rejoindre sur senego.com, Senego TV. Ah, tey nag ñoo ngi fii am suñu entretien exclusif avec euh, Yannick For Real wala. mën naa xam tur bi c'est comment. Yannick Diouf Yannick Diouf. lan moo waral Yannick For Real. waaw turu Instagram turu Facebook la commencé après après ñu ma koy woowee muy tur bu law ba après ma def ko comme username Instagram mais ci lañ ma doon woowee Yann. après ci laa ciy gis Yak for Real. so Yann wala Yannick for Real tey nag ñu ngi fii ci New Jersey euh, fekk fii Yann wala Yannick euh, war a am ak moom entretien spécial waxtaanee ci wàllum carrière professionnelle moom di footballeur di euh, gardien de but Yannick dama lay bàyyi nga présenté wu wax sénégalais yi kan mooy Yannick. bon maa ngi tudd Yannick Diouf tout premièrement maa ngi lay nuyu bu baax a baax naa di rafetlu sa liggéey bu baax a baax bon maa ngi tudd Yannick Diouf pays New Jersey euh, di football euh, Berkeley College deuxième division USSA euh, bon man Sénégal na maa ngi dëkk sali maa ngi dëkk sali fa laa fa laa passé sama presque sama sama sama vie yëpp bi may am 17 ans après ci laa ñëw fii mm-hmm. so maa ngi fi depuis trois ans. Mm-hmm. bi nga ñëwee fii Sénégal nga commencé sa carrière professionnel football. nan nga def ba dugg ci football mën nga ñëw nettali histoire bi nan la demee. bon football moom naka jekk comme jeune yëpp Sénégal ah da ngay da ngay mën dox mën daw rek commencé football depuis mu ne xale mais euh, carrière bu sérieux la muy commencé pépinière jàmbaar vu que jàmbaar sali cinq minutes mën nañ ne cinq minutes dox la ak sama kër léegi foofu laa commencé ak euh, coach Jules euh, coach Ibrahima sis tamit. bi euh, may commencé nag nekkuma woon gardien mais juste benn match lañ essayé lañ amul woon gardien bi ñu essayé comme gardien après ma joué mu jàll. ka sama booy ko yi ño ko woon dafa am sama booy ko ñu ma bokkaloon pépinière bi ci ci ci jàmbaar bi après ñu ne ko Yannick mu Yannick Yannick war na mun góol après ma góol mu jàll. Mhm. après ci laa commencé ci laa ci laa doon góol di sol may différent ak ñoom ak lépp ba noonu la commencé sama position góol. après bi nga commencé ci nga dem école football. oui bi ma commencé ci laa nekkoon pépinière jàmbaar mooy juste avant ngay nekk ci académie bi pépinière bi comme genre école de foot la mais malheureusement maire bi d'accord woon trop ci football mais bon yaakaaruñu dara du coup après ba loolu jaalee ci jàmbaar après ci laa dem DESFA. ci def test des fa man ak sama xarit yu bëri ñu nekkaloon jàmbaar ak ak suñu koñ et tout après ci la joué fa bu Mbour bon foofu def naa fa je pense un an laa fa def def naa fa un an boobu maa ngi def sixième après ci la ci lañ ci lañ découvrir benn académie bu ñuy wax CAS collège africain sport collège africain sport étude bu nekkoon Mermoz après ci lañ ko informé sama yaay yaay yóbbu ma foofu di ma fayal après ci laa bon gisuñ ci woon la ñu doy maire bi génnewaat ma foofu ma delluwaat DSFA bi ma delloo DSFA ma defaat fa benn un ci la la nekkoon di jàngee benn école bi ñuy wax Kër Madior mais dama damaa entraîné ci seen kii bi ci seen équipe école bi après bon ci laa découvrir benn coach bi ñuy wax coach euh, Lamine Mamadou Lamine Thiaré moo mu yor Nkono Keeper Academy buy na gardien bi kase après sama expérience yu ëpp nag foofu laa ko jëlee ci coach boobu ñuy wax Lamine Thiaré ma koy nuyoo passage ci laa jàngee lu bëri ci góol positionnement ak lépp lépp loo xalaat ci góol foofu laa ko jàngee ci coach Mamadou Lamine Thiaré mu jàppale ma bu baax ma def ci moom ma passe ci moom temps juste avant ma dem ci la ma maire bi envoyé Fatick pour ma concentrer wu samay jàng boobu ci laa toog euh, def naa benn deux ans boo xam ne année blanche laa def mais fekkee woon naa vacances yi bi mu jotee tamit teewul mair bi fayal na ma ma dem ci stage u coach Lamine Thiaré bi stage bu baax vraiment buy buy defar buy defar góol bu baax a baax ma dem foofu léegi après ci laa delluwaat Fatick nag pour def BFEM bi ma defee BFEM ba jàll nag après ci la ma ci laa ànd ak bi ñëw fii nii ci laa ci ñëw Amérique léegi durant boobu 2019 bi fekk na saison bi raw ma comme gars saison école bi maa ngi woon ci benn école bi ñuy wax Memorial High School fii euh, New Jersey après boobu raw ma mënu ma woon mënu ma woon jouer léegi beneen saison bi mu ñëwee nag ci la intégré après ci laa góolu foofu noonu euh, ñu mu compétition bien vrai que équipe bi demee foo woon noonu mais amoon na quelques jours yu baax léegi ñu ci la ñu élimine quart de finale kii nii euh, mooy coupe état bi state coupe bi mm-hmm. après ci la ma beneen académie gis ak yeneen joueurs yu baax yi noonu sama équipe ñu jël ñu ñun ñett ñooñu yëpp après ci laa bi ma demee foofu nag ci laa ci lañ amoon vraiment équipe bu solide. Mhm. ñu commencé gagné euh, ligue bi sax ñoo ko mujjee jël IDP e ligue bi après ci lañ joué yeneen compétition yoo xamante ni dem nañ ñaari yoon dem nañ trois fois finale du moins perte yëpp. Mhm. vraiment moo tax ba boobu mosuma xam luy mais quand même médaille finaliste bi lañ doon am quoi. Mhm. léegi bi ma jugee kaani tamit munu kaani U19 la woon te fekk na ma samay 19 ans matoon bi ñuy jeexal saison bi léegi munu ma woon jouer saison bi si topp parce que U19 la woon léegi ci laa toog tamit beneen année joué wu ma ma concentré wu ci jàng bi après ci laa gradué high school léegi. fekk euh, juste avant ma gradué école bi coach bi yaa coach gisoon na ma commencé woon naa ñoo entraînement ba xamante ak ñoom mhm. ba sama boy yi ma nekkaloon kandi tamit mu am ñu ñëw fii nii ñoom ñu xëccaale ma après ci laa entraîné équipe bi neex ma et ak coach bi staff bi lépp après ci la ñëw bien vrai que école bi vraiment chance la pour nga jouer fi parce que dafa fay bi dafa métti et am nga gars yi li ñuy joxe ak yooyu noonu ba nga mën a mën a intégré ci te du sa poche yooyu yëpp yàlla jàppale ma si ba ma mën a ci biir équipe bi école bi am na un peu avantage. Euh, hmm, am na avantage baax a baax a baax. Mhm. bu dul ci football bi mu ngi ci jàng bi tamit. genre boo fi gradué rek da ngay am liggéey quoi ak lépp. Mhm. wax nga ko def nga trois ans yoo xam ne amoo trophée jour bi nga am trophée ci biir euh, club nekk wala ci biir école bi. nan école bi laay door amee trophée muy même pas une semaine dimanche passé ci lañ joué conférence. ak suñu benn équipe rival ñu tase woon fii match nul ba match bi mujjee tas après affaire yooyu léegi ñu tasewaat ak ñoom final conférence mm, bi ngay mooy final bi ngay mooy tournoi bi ngay joué juste compétition bi ngay joué balaa ngaa dem phase nationale yi léegi ci lañ joué ñoom ñu gagné leen ci lañ joué gagné beneen équipe bu ñu jëkkoon joué tamit après ñu tasewaat ak ñoom final ñu gagné leen mhm. léegi boobu moo nekk sama premier trophée bi ma xam mhm. léegi semaine prochaine semaine prochaine lañ war a dem jouer ci phase nationale yi pour tëj saison bi. Mhm. ndax yéen a am ay contact ak suñu autorité yi nekk Sénégal euh, par rapport ak euh, def ay recherche pour yéen pour jëm leen a localiser xam fu ngeen nekk jëm leen a xëcc suñu team. non man moom am na ay démarches yu fi. man moom vraiment mosuma am contact ak euh, autorités yi nekk Sénégal bien vrai. Mhm. ñi ma ci xam sax bëriwuñ mhm. mais. maa ngi góorgóorlu maa ngi joué jéem am samay highlight ak yooyu noonu. Mm-hmm. mais leneen xam naa ni moom mosuñ ma mosuñ mosuñ mosuñ ma gis vraiment parce mm-hmm. que temps de jeu xam naa bi war a feeñal jour Sénégal jotuma koo am. Mm-hmm. mais fii tamit mais fii moom maa ngi joué sant yàlla bu baax a baax ndax yow yaa ngi def say démarches bopp pour loolu. wala euh. yenn seen club ñi ko dirigé ñoo ngi def ay démarches pour jëm leen a jaay wala jëm leen a doxal benn business. ci yenn club par rapport ak par rapport ak lu jige fii ak sa dëkk ñoom moom duñ koy ñoom waaye équipe bi fii duñ koy gérer mais pour nga génn mhm. gars yi dañ lay gis fii ni boo joué compétition bi gars yi dañ lay gis dañ lay bëgg yeneen niveau yi tamit mhm. comme ni ma def ba intégré Karne ak ni ma def ba ñëw fii gars yi dañ lay gis noonu pour mhm. ba nga gën a mën a joué ci beneen level mais quant à lu dem lu dem Sénégal moom bon xam naa dama amul contact bi noonu quoi dama contact d' accord ci sa carrière professionnelle wax nga ko depuis au Sénégal ndax centre de football bi fa nga jàppee ne li nga xam fa nga ko xamee wala jàpp nga ne centre de football yi am au Sénégal am na njëriñ. si fa laa xamee li ma dem vraiment li ma jàng yëpp Sénégal laa ko jàngee. Hmm. parce que damaa ñëw indaale li ma xam Sénégal gars yi bëgg ko fii ba mën ma jël di ma boole seen équipe mais lépp lépp lépp lépp Sénégal la. Hmm. Sénégal laa jàngee football fa laa jàngee yoonu gardien de but lépp fa laa ko jàngee. grâce a coach yooy di ko jëlee pépinière de jàmbaar bi ñoom coach Jules ak Ibou ba ci coach Mamadou Lamine Thiaré ñoom ñëpp man moom fi may ci loxo coach Mamadou Mamadou Lamine Thiaré laa ko quoi juste avant maa ñëw fii nii moo tax lépp ñoom la quoi foofu laa jàngee lépp vraiment liñ lay jàngal fii rek lañ lay jàngal Sénégal ak lu ko raw moo foofu am na avantage Sénégal am na avantage wu defar defar joueur bu baax a baax a baax a baax a baax am ne boo ñëwee fii doo sonn quoi ak feneen fu mu mënti nekk. ci sa jàng perturbé wul dara sa carrière professionnelle ak sa jàng ndax amul lu mélange wala école bi dañuy respecté normes yi. si non école bi ñoom dañuy make sure ne yow joueur bi sax doo am classe boo xam te ne dafa passé midi quoi moo tax nu mu mënti demee midi da nga wàcc sa da ngay am jour yooyu jàngi am na jour comme man vendredi tey jànguma euh, dafa am jour dafa am ay jour yoo xam te ne da ngay jàngi am que da ngay une heure ba treize une heure ba quinze heures du mhm. moo tax ñoom dañoo respecter norme yooyu te say note tamit faa muy nekk si kaw sinon doo mën a jouer. Mhm. parce que problème am nañ problème boobu ak suñu benn milieu terrain bu important ci équipe bi mais mujjul mujjul jouer suñu final yeeg yëpp joué wul. ndax dañuy dañ lay forcer pour nga jàng. yee faa nga jàng faa sa note yi nekk si kaw parce que kii ci boppam ñoom seen règle. fédération bi nekk si kaw buy gérer ñun équipe équipe euh, université yi yëpp ñoom dañuy dafa am crédit bu ñuy laaj ci joueur am nombre faa am point temps pour nga mën a jouer moo tax moo tax ñun loolu loolu sax moo indi benn problème suñu équipe parce que amoon ñun joué nañ vingt match total match suñu joué vingt match lañ joué mais amuñ benn défaite euh, ñaari nul lañ am saison bi yëpp mhm. mais gars yi dañ ñoo compter neuf défaites yoo xam te ni daf ñoo wàccee ba troisième parce que ñoo nekkoon premier Mhm. mais ci kayit instant yi ñoo nekk troisième mais dans les normes ñoo nekk premier parce que amuñ benn défaite match suñu match yëpp lañ except ñaari match yoo xamante ne dañoo am nul mhm. mais joueur boobu nga xam ne amul woon point yi dafa footballoon tamit dafa footballoon neuf match yooyu ñu defal défaite xamuñ ko woon mhm. les affaires ñu dem ba fin côté fin saison bi nag mu door ñoo affecté moo tax ñu mujj dem sans joueurs yooyu noonu continuer saison bi joueurs yi important euh, au seen réaction nan la nan la demee après. bon ci gën a encouragé voilà quoi. bon maire bi moom man damaa bokk famille boo xam te ne dañoo gëm jàng. voilà kenn sama famille da ngay dégg ne kii noon na football kii mënoon na football mais mosoo cee dégg ne kii nekk na professionnel wala yooyu c'est très man fàttali ko ma ko ci nekk professionnel quoi mais ñu ñu talentueux mais man am na ay cousins yu talentueux yoo xam te ni ñoo ma ñoo ma ñoo ñoo ma gën a mun football fu xam football mais bàyyiwuñ leen ba léegi nii bàyyiwuñ leen te man tamit jaar naa ci lool mais xëy na maa ci ëpp chance génn dem football yeeg yooyu mais am naa sama benn cousin maa ko magee ñaari at ñoo tolloo gabareeg lépp mais ba léegi sax xam naa temps yi tànn na sax mu ngi football ak yooyu mais ñun ñaar ñoo doon subir même chose quoi parce que suñu famille dañoo dañoo respecté jàng ak loolu. moo tax loolu loolu xaw na bok ci lu mën naa ne tardel carrière bi tuuti tamit. mais noonu la fa demee quoi. boo amoon benn message booy lancé parents yi nga xam ne dañuy dañuy bëgg seen doom euh, seen doom dañuy gis dara focus ci football ñoom ñu bañal leen ko ba message nga leen di jox. ñu may seen doom yi chance parce que parce que gëm naa ni buñ mayee seen doom chance rek dinañ gis te dinañ gis te li te lépp lu ngeen di seet lépp lu ngeen di séntu ci jàng tamit teraanga bu ngeen séntu ci jàng tamit am na ci football bi parce que. football booy euh, joueurs yu baax yëpp yu ñuy gis macha allah ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàppale dëkk baax lépp lépp lépp kon pourquoi pas seen doom yi parce que talent bi mu ngi Sénégal booy ñu booy ñu ëpp talent fu ëpp ñu chance ëpp ñu chance ñu ngi foofu noonu te ñun xam nañ ko. Hmm. man yi ma bokkal ko ñu bëri ñoo ma ñoo ma ëpp talent. te ba léegi dama bi ma delloo Sénégal temps yii dem naa fekkaat leen même position bi ñu toogoon affaire yooyu te xam lu métti la quoi. bon may may may li ma leen mën a wax mooy daal ñu may booy chance quoi. Mm-hmm. ok suñu équipe Sénégal euh, gannaaw bu ñu jëlee Coupe d'Afrique ñoo ngi préparé pour dem ci Coupe du Monde ban message nga am pour équipe bi avant ngay am ci les deux gardiens yi nga xam ne non xamaguñ sax yan gardien la ñuy sélectionné ñu war a dem mais ban message nga am pour équipe bi ñoom ñu war a représenté Sénégal ci euh, World Cup Qatar 2022. non équipe bi moom macha allah joueur yu am talent. joueurs yu euh, joueurs yu joueurs yu am talent ñoo ci nekk bon li ma leen di xanaa li ma leen mën a wax mooy gën a solidaire parce que solidarité rek ñu mën a soriloo ci coupe du monde bi parce que euh, équipe africaine yi bu ñuy xool macha allah ñun ñoo ci gën a ñun ñoo ci gën a baax équipe et tout moo tax euh, li ma leen di li ma leen di jox comme advice daal mooy ñu gën a solidaire rek. Mhm. comme niñ demee kaan bi solidarité bokk na ci di tax moo gagné ko ak mhm. moo tax. loolu laa leen con loolu rek laa leen conseillé parce que par rapport par rapport à loolu leneen leneen lépp mu ngi ci quoi. Mhm. te ñu bañ a naagu tamit comme daal. Mhm. Euh, ci équipe wala ci ñaari gardien wala trois gardiens yi war a dem. Mhm. ban message nga am pour ñoom en tant que yéen a bokk profession bi ngeen def gannaaw ñoo la ci jiitu ñoo la ci expérience mais yow ban message nga am pour jox leen ko en tant que jeune pour say grands frères yi war a dem mission. non gardien yi trois wala deux yi dem yëpp. Euh, premier conseil bi ma leen jox mooy ñu déggoo seen biir ak lu mu mënti demee kuy joué ku joué wul yëpp parce que lool dafa dafa important dafa important gardien yu déggoo dafa important si équipe comme comme ñaari axe yu déggoo tamit dafa dafa important si équipe ak nu mu mënti demee kuy démarré na mel ni keneen ki moo démarré. Mm-hmm. Euh, en plus ñu ñu lead équipe bi xaw ma nan laa ko mën a wax ñu guider équipe bi parce que lu ñu gis kenn mënu ko gis ñu lead équipe bi gëm seen bopp. Mm-hmm. gis nañ Edouard Mendy trophée bu mu jël ci góor sénégalais lu lu jar a ñàkk a la parce que lu mag la lu mag lu mag la jël gardien yu bëri ñu koy bëgg jël. Mhm. moo tax ñu am confiance suñu bopp solidaire ak euh, guider équipe bi rek. Mhm. ñu dinañ sori bu baax a baax a baax ci mhm. coupe du monde Sénégal am na équipe U17 U20 u ndax. Euh, tàllal nga suñu autorité suñ leen tàllal leen loxo pour ngeen ñëw nekk ci équipe boobu jàppale leen en na ñuy dem ci équipe bu mag bi ndax pare nga pour tijji leen seeni porte pour ñoom ñu mën a def ay recherche mën a trouver ay doomu sénégalais yu nekk extérieur andi leen fexe leen ba duga leen ci biir équipe nationale. bon ñun ñun ñun ñun mooy suñu souhait parce que ñun Sénégal lañ Sénégal lañ am vraiment man sol maillot Sénégal taxaw terrain pour bokk ci ñoo xamante ni ñooy. ñooy fayadal équipe bi lu ma bëgg la vraiment man parce que ñoom tamit Sénégal lañ am Sénégal lañ jàngee lépp ak lool kon balaa ñoo am balaa keneen di ko jëriñu si ñoon suñu dëkk lañ suñu dëkk la ñuy njëkk a suñu dëkk lañ koy njëkk a yéene quoi. parce que xam naa ne man tamit bu ma nekkee bu ma nekkee équipe équipe équipe Sénégal tamit dinaa dinaa confortable trop parce que xam naa fa nit yu bëri yu fay jouer instant yi ay booy yu bëri yu may yu may yu may yu de passage moo tax quoi xam naa ne. Euh, lool lool lool moom ci suñu suñu but sax la bokk mën naa ko mën naa mën naa ko jàppee comme but boo xamante ne bu war a accomplir la ci loolu ci loolu mhm. tamit ci la bokk. Mhm. ci milieu sa profession bi nga nekk muy gardien bi euh, euh, kan moo ciy sa idole ci ñi nga xam ne ñoo nekk international yëpp pas ci équipe Sénégal mais partout dans le monde ban référence nga gis ci ñoom pour mën ko topp. bon man Manuel Neuer yàgg na nekk sama idole Pirochak tamit temps Chelsea tamit yàgg na nekk sama idole. mais Mendy tamit ci samay idole la bokk vraiment Mendy tamit vraiment samay idole la parce que man dama dama dama dama dama apprécier courage am courage bi ma ci gardien de but dama ko apprécier quoi vraiment vu saison bi mu defoon ak lépp lépp lépp li ci wane daf ci am courage torop moo tax man Mendy tamit nekk nekk nekk bokk na samay idole quoi. Mm. Mm. d'accord mm. te daf may te daf may te bu bëri may taxaw naan Mendy mooy sama Mendy mooy parce que. vraiment référence référence la ci ñun ga jeune gardien sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp ñun ñëpp référence la ci ñun moo tax mhm. ku jar a roy la tamit quoi. maanaam comme yow ban message nga am loo xam ne tey bëgg nga ko partager partout dans le monde te man laajuma la ko. bon a ah, man moom vraiment hmm, xanaa di wax autorité Sénégal yi ñu ñu ñu ñu gestu tamit jeune talent yi nekk si extérieur bi ak diaspora bi yëpp parce que am na vraiment am na boo yu bëri talent yi fi nekk yoo xam ni. tey jii duñ mës a rejeté appelu équipe national te xam naa ni mën nañ apporter équipe nationale lu bëri moo tax nañ gestu un peu partout dans le monde parce que bo yu bëri talent ñu ngi ci biir dëkk bi même pas am nañu ma ëpp talent yu nekk ci diaspora beeg nii États-Unis yu ma xam yu bëri yu mën a apporter lu bëri ci équipe national moo tax sélection yi fa ñuy gestu fépp fépp ci Sénégal fépp ci diaspora bi. ci côté football ci côté basket. côté football surtout basket tamit am na fi ay booy yu am na fi ay booy yu talentueux yu ma xam vraiment. ñu ñu jar a lañ quoi. Mhm. xaw ma nag nuñ ko comme comme yow ni nga def nii vraiment lu jara a saluer parce que ah, xëy na yow tey jii boo taxawoon boo taxawul woon euh, interview ak man du du duñ ma mës a duñ ma mës a a gis duñ ma mës a xam affaire yooyu mais sa lu gars yi war a saluer la tamit lu gars yi ñu bëri ñu bëri lu ñu def def comme yow daal war na ñu bëri tamit quoi pour ñu gestu jeunes yi nekk ci ci ci diaspora beeg yooyu. d'accord. Euh, voilà ma bàyyi la tàggatoo rek. bon di am contentement ak ñëpp vraiment di waa nuyuwaat naa bu baax a baax ak sa groupe waa Sénégal yi tout vraiment geste bu jar a saluer la tamit comme li ma comme li ma waxoon rek nañ gëstu jeune jeune talent yi nekk ci diaspora beeg extérieur bi fëpp fëpp di ñaanal suñu équipe nationale bi di dem xam ñu. manko wuti ndam li comme niñ ko waxatee comme niñ ko doon comme ci kaan ba defee ko mhm. vraiment di nuyu ñëpp di ñaanu Sénégal jàmm yàgg fa bu baax a baax a